liggéey Fatick benn la fi nga bëgg liggéey waliyaa ni waliyaa ngoog. waaw sama sama njaamu or bi. ngeen préparé lamb préparé boobi da di moom pare la dinañ day faj bu boobaa moom bu ñëwee dina xam moom mooy faj mer wala ñun ñooy faj mer. mooy faj mer ñun ñooy faj mer xam nga a faj waaye ñun ñooy faj. lu lay dafa xam rek booy piquet xam nga foofu di kenn laamu nekk si télé bi di ndeelu di wax naan daa am daan boo waxee loolu waxul lu am. ñun fii lañ dëkk fii lañ juddoo fii eh. nga lan. laamu ñun pare nañ bu yàgg. billaay yow ki ngay jàpp defee doxo barki yàlla. pël bi nee na la. mbujjee at day jooy. njaago bi nee na les waxul ci tàq na loolu mooy binoso binoso mais fekkelem le comme atam ba arga jaa yàlla noppi na de. waaw borom tool wee ñëw. gaa yi ba am nañ problème ku doon liggéey jërëjëf borom tool bi ñëw na. borom tool bi ñëw na de. ñoom ñëpp am problème. wër na Serigne Bamba. xëy na loolaa. Liss. Liss da nga lay nuyu. Aja maa leen bëggee baax. waa ñu ngi si jàmm wéer a wéer. waaye la comme ni ñu ko daan waajee. waa di ñaan yàlla yàlla yàlla suturaal la may billaay parce que waaw man sama adversaire la maanaam yeeguñ foofu quoi instant bisu rakk quoi Laurent waaw ah. sànq lii la du ma wax si loolu quoi. lan lan lay nga ñëw accompagné tey sa rakk. waaw kon maanaam day mel ni man rek. waaw sama deret la quoi. waaw. di gis jàmm gën yëpp nekk seen ginnaaw. waaw di na ñëpp génn dimanche. ñëpp nañ génn ñëw jàppale ko amul lool parce que combat nee na combat waxam soxla nañ ko trop. waaw. mu ngi si forme. mu ngi si waaw yow. maa ngi doon jour day dama gis damay xool

woote tey waa lii ban béjjén la xale lii ban béjjén la. waaw bari. dana am foofu bëgg Liss Ndiago. ana ñu bëgg Laurent Ndiago. mais eh, yéen a ngi seetal la. Eh, Laurent ana loxo yi. Thank you. Masika Desiga Desiga ñu ngi lay nuyu waaw maa lay fay ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di sant Serigne Moustapha Mbacké imam borom saam di nuyu sama doomu ndey sama xarit sama lépp ñoo bokk jàmm gën Laurent Ndiago di leen ñaanal jàmm gën fi am combat ñëpp yàlla may leen ndam di nuyu waa jàmm gën public mbëru àdduna mbëru askan bi moo leen di bégee ku rek maa lay bégee waaw Wassare la ngay gis waaw rek amoon naa combat ji bisu Laurent bi laa waroon a bëree maa ji waroon dal bonde waaw amoon loxo rek waaw ay tane bu baax a baax bu ci waaw ñun deretu jaama gën moo ñu sonal lay conseil xalaat ma koy ba ma koy ruuxal la te mi ngi état amul leneen dem jëli ko bu rek ñor na bu rek ñor na lay wax adversaire na dal rek xam ni day rek day nen kon na teel a nen kon na teel a nen ndombal tànam moo si moom noonu. am na combat de. waaw loolu du ñun dara yéemuñu boo gisee ma toll nga xool gars yi ni ñu xam ni jàmm gën am na lépp ci maayen bépp ci côté bépp ñun duñ ci ragal waaw jaajëfatee. saa moom la ñuy wayal way Baye Fall yi soobee na leen ñii ñëw sa maafu na sa bilaay ina la ci seral ko ñii naa gis ci ñii seen ay waaw maa leen fay. loo nekk. waaw sant nañu rek di la sant borom bi bu wér a wér. préparé combat. waaw ñun pare nañ si lépp par sëñ Touba ñun pare nañ démb tey di soog a ñëw. di la walaay booy benn jooy la amul wax. kii li ma woowee moom daa bëriwut na arbitre bi suuf la rek mu des moom ak sa waay ñu faj ko suñ mer ñun léegi ñu wan ko liñ ko mere barke alxuraan ñu jooy ko benn jooy amul leneen li ñuy wax ak moom. lan lay conseil Laurent. Laurent mooy lenn rek laa koy mu taxaw dëggal boppam suuli tàngam teelu booy bi bu mu yaa xam di bëree man loolu rek laa koy conseil en tant que sama doomu nday loolu laa koy conseil conseil moo ko leneen. combat bi dina yomb. ah combat bi dina combat bi du mën da yomb ja bëri dóor wax foog am xeex foog am ñamante waaw kuy naawee fu ne kon xam nga foo mu métti wu waaw dañ ko méncee rek bilaay waaw gis ngeen loolu moo noonu si bos si bos boske moo pekele tekke moo tekke la waaw teke bu Laurent Ndiago taqe taqe taqe la taqe taqe maanaam ku ku aay taqe bu bu Laurent Ndiago la àndal xale Laurent dafa mel ni dafa si pour xeex de gimbete te kin rabax te gimbete kin jas kin jas gimbete te kin rabax te gimbete ndeysaan ay costume boy la am costume boy la Search and leave, Monday. You're gonna give me Monday. yàlla bu baax a baax. yaa ngi sport macha allah. waaw liggéey rek ku léegul doo fayeeku waaw. lay wax tey sa mbër. ah. sa mbër wax li ma koy wax mooy mu dal rek. nga xam ne lamb ji moom lambam la. te rafet nañ ci njort bu baax baax a baax. jàpp nga ni combat bu gaaw lay doon wala na gaaw mën na yéex. sans dépasser adversaire bi lu muy indi. waaw mais ñun daal li ñu ñor mooy ndam. te incha allah yàlla dañu suturaal quoi. si xeex si xeex lay may waaw loo ñoom loolu lañ gis ndax booy bee xeexkat la mais li nekk si booy bi génnagul mille la te benn rek la waneegum waaw kan xam nga ni loolu des na waaw liñ gën a dem na gars yi di gën a gis. waaw amoo lu ma koy wax man su ma rek laa am lu may waxal. yee eh, moom li muy liggéey liggéey na ko pare ñun luñ koy ñaanal lu dul ndam da yàlla na ko suñu borom bi ma ndam. si loo nekk. waaw si lu ma nekk maa ngi waajal suma combat maa Youssou Ndour waaw le 30 avril jour combat Lac Rose Quench eh, jaajëf. Franc moo noonu lu mu yor mooy jaan waa lan la xale jàpp si nga jàkkaarloo moom moo noonu lu mu yor nii lan la ay man tiit naa ay man tiit naa man tiit naa di ay man tiit naa di ay dañoo bëgg ñëpp xam ne lii sunu bis la tey élément Serigne Saliou élément Serigne Fallou naa ko Laurent Bokh waaye Sëñ Fallou muy ko Laurent Bokh waaye Sëñ Touba muy la ko koy Laurent Ndiago bay <laughs> karmala ana njaago yi ak bëgg sëriñ fan looy galas alaaji fan mooy fan fale ku ko neex fala ngay fale galas oh, bàyyi meen ak tëgg baay saali wooy yeey galas doomi ma mbamba waaw xaren i baay sang baay bu sëriñ Fallu ñëwul waaye mu neex su fitee day neex soo bëree day neex xarit ah ah nañuy dooleel dooleel xale loxo yi Njaay Roland Ndiago moo ko doon def nee na mooy borom doore yër bu xonq bi borom yër bu xonq bi nag mooy kan loolu yëpp dawul yaramam man xale bi dama bëgg en tout cas le 25 incha mu nekk combat boo xam ne combat bu nara neex lay doon moom ak kii di Alliance Baldé rendez-vous à ne surtout pas manquer après ñu dem xoolwaat open press kii Alliance Baldé lan joxe moom tamit merci sama cameraman Khalil automatiquement automatique.